salaamaaleykum gars yi nii naa leen taneen ak jaamu ci seen sport de 120 ans transfert la ñu koy doree Papy Mission Djilobodji l'international sénégalais di footballeur foofu la ca Turquie ak club bi di Gaziantep jàpp nañu ne dina fa jógee club bu mel ni Galatasaray bokk ñi nga xam ne yitte woon nañu ko ndax moom kat ak club boobu nga xam ne mooy Gaziantep jàpp nañu ne seen saison jeex na Gaziantep annoncé woon nañu ay ci ginnaaw ne ñoom ba ci ne dañoo dal di génn ci compétition boobu nee nañu li ko waral mooy yëngu-yëngu suuf bi nga xam ne dafa xewoon foofu la ca Turquie rey ci ñu bëree bëri am ci ñu bëri ñoo xam ne tam jamono bi ñu ngi ci ami jafe-jafe léegi nag ñoom nee nañu ci seen dëkk boobu di Gaziantep fa la dégg ñi loru ëppee voilà ñoom ñoo ci gën a loru nee nag yooyu noonu yëpp mënuñu ko boole ak di football moo tax ñu dal dakkal li nga xam ne mooy seen dégg maam saison fii li des ci saison bi yëpp doonañu ko football li nga xamante ne moo aju ci seen saison jeex na léegi nag jàpp nañu yoo xamante ni dinañu fa jógee Galatasaray bëgg yooyu bi ñuy xool ak club yu mag lañu foofu la ci Turquie Djilabodji bi nga xamante jamono bi mu ngi ci 34 ans waaye nag la bu xarañ boo xam ne bokk na ñi ràññee ci club boobu ci at yi def bi sax mooy vice capitaine bi voilà maanaam moom bu capitaine bi wuutee moom mooy takk li nga xam ne mooy brassard bi léegi nag moo tax jàpp nañu ne dana fa jógee Galatasaray Trabzonspor ñaa ñaari club yëpp ñu ngi liggéey xool dégg nga wala voilà moom mi nga xam ne jamono bii mu ngi woon foofu la ci LA Galaxy jël dal dina fay jógee dana dal di signé ak Barcelone suba dal la ñuy séntu mu amal li nga xamante ne mooy nga maam visite médicale bi voilà loolu la xibaar di biral mom Julian Arojo bi nga xam ne kayiti xibaar dañoo biral ne ci transfert yi weesu muy janvier bi Barça juboo woon na ak club di LA Galaxy ngir signé ko waaye nag mbir yi dafa tardé ci 18 secondes maanaam fukki secondes ak juróom-ñett képp moom la tardé nyukis ñu gis ne mënuñu ko woon a dégg nga maam signé ndax fekk na marché bi nañu mbir mi mom fim mu man nii mën nañu ko lijjanti léegi léegi nekk amna deggo sen seen club boobule suba la sentum amal visite médicale dina signé contrat wu ñetti at ab latéral droite nag latéral droite la bo war a ñëw foofu la ca Barcelone bu ñu sukkas ndekoo ci kayiti xibaar ñu koy suba xaar suba suba ci alxames bi waaye Barça googu de dafa am beneen coow hamna xam ne daf leen topp coow li daal xam sorewut ak li nga Juventus ak Manchester City gannaaw Juventus gi nga xam ne jamono bi amna na ay tuuma yu ñu wat yu ñu teg ci deram ba dal di wàññi ci moom fukki poñ ak juróom Manchester City moom itam am lu ko tumal ba topp ci kawam di ko enquête jamono bi Barça moom la ñu de dal di tuumaal yeneen tuuma yoo xam ne fi ne nii jàpp nañu ne moom it ñu ngi gëstu ay mbiram ndax nee nañu de ki nga xamante ni moo vice président wu dégg nga maam arbitre yi foofu la ci Espagne Barça daf ko don fay lu toll ci ñetti at 2016 ba 2018 nee nañu dafa am koppar yoo xamante ne toll na ci benn million bu toog bu dégg nga maam ñeenti téeméeri junne ci xaalisu euro moom la ñu doon fay dégg nga vice président wu arbitre yooyu la léegi nag loolu nag la ca aju ak li tax Barça don ko def mooy li nga xam ne moom la gars yi di gëstu voilà te jàpp nañu ne bu amul chance dina am am daan yu métti yoo xam ne dina daal ci seen kaw bu fekkente ne mbir mi nekk na loo xam ne lu dëggu la voilà scandale daal lañ ko mën a tuddee scandale la léegi nag Barcelone ñoom daal dinañuy weddi def nañu communiqué daal di weddi loolu di wax ne maanaam loolu ñu leen tuumaal amut waaye gars daal ñu ngi def li nga xamante ne mooy ay enquête kon jamono bi mën nañu wax ne club yu bari fi ne nii dégg maam ñu ngi ami jafe-jafe rawatina équipe yu mag yi Espagne googu duñu fa génn dañuy des foofu la ci Barcelone ba tey Ansu Fati moom itam beneen joueur Barça la boo xam ne jàpp nañu ne bu ñu amul chance dana fa jógee ndax club anglais may ñu ko jàmm bokk na ci Liverpool Arsenal ak Manchester United ñetti club yi yépp bëgg nañu kii di Ansu Fati bi nga xam ne jamono bi remplaçant la day toog ci banc bi jamono bi nag jàpp nañu ne ngir jot ci moom lu gàtt-gàtt 100 millions di nga ko teg ci taabal ji xaw ba bariwut blessure xaw nañu ko sonal waaye daal club yooyu pare nañu ko jox chance comme ni ko kay xibaar biralee Liverpool Arsenal ak Manchester United bu ñuy xool ñetti club bu mag la foofu la ca Angleterre Abdou Diallo l'international sénégalais moom itam jamono bi ay mbiram taq na suuf de gaañu gaañoom bu wér a gudde moom mi nga xam ne fan yi rek déggoon ngeen Leipzig ne nañu dañu koy delloo foofu la ca Paris bu saison bi jeexee ne daf ko dal di am nee nañu blessure ba dina ko jëlaat yeneen semaine ci kanam balaa muy dellu ay semaine ci kanam la wax ne dana ko xaar média allemand euh, bi moo dal di génnee lu nu mel léegi nag jàpp nañu ne day bu fekkente ne loolu xew na mooy dañu jàpp ne match yu Sénégal war a ci mois ak Mozambique léegi nag match boobu da mel ni bi xaw na jege si mois de mars lay doon voilà léegi nag euh, Abdou Diallo moom comme blessure bi wéragul te jàpp nañu ay semaine dana ko toog ay semaine moom ñu amul chance dëgg duñu ko am ci jogante googule waaye dinañ continuer di topp mbir moomule ba fa muy mujj gannaaw loolu Kara moom nag jamono bi moo ngi foofu la ca Belgique ak club bi nga xam ne mooy Anderlecht nga nga xam ne jaar na fa yàgg fa lool sax def na fay at dafay jaloore moom Kara

honneur foofu la ca France moom jàpp na ne daal Paris Saint-Germain koy wax dëgg mooy Mbappé mu ne Mbappé mooy Paris Paris daal moom mu ne peese dara peese dara matul sax liibar bay mat kilo moom li mu jàpp mooy Mbappé 35 minutes yi nga xam ne def na ko ci terrain bi ci la ñuy a gis Paris Saint-Germain ci la ñuy gis li nga xam ne war nañ ko mën a wane waaye daal li ñuy football ba bilaa Mbappé di dugg ci terrain bi nee na kenn xamul lu mu moom nañ ndax Paris saint démb sans Mbappé moom jàpp waxi Habib Beye ji du neex a dindi bi mu duggee changé na ci match bi lu bari gannaaw loolu Paris saint googu ni démb am na genn gone goo xam ne ni dégg nga maam moo doon football ci seen côté droite bi ñu koy wax Zaïre Emery voilà xam ngeen démb titulaire la ne nañu mooy ki gën doon gone football voilà dal di titulaire ci li nga xamante ne mooy knock out stages maanaam dóor toog kon fi ñu toll nga xam ne mooy Sénégal ay wer wala mom ki di Zahir Emery nek ca Paris Saint-Germain mooy ki gëna doon xolé xalé dal di titulaire ci li nga xamanteni moy mooy euh, dégg Ligue des champions ci euh, phase bi ñu toll muy élimination directe malik Thiaw malik Thiaw bi nga xamanteni mom moom dégg nga maam wax né germano sénégalais la kii xibaar yi biral nañu ne démb bu match bu reuy bi mu def ak AC Milan mom nak jamono bi ni nga xamanteni ni ñoo di waa AC Milan dañu bëgg lool lool lool ci performance yi nga xamné jot nako woné malik Malick Thiaw xam nga bu ngeen di baye xel ci transfert yi lañu ñu manam maanaam bi ñuy tàmbali saison bi la ko AC Milan jënd mu jógee Schalke 04 yaakaar naa daan nañ leen jox fi ay novelam moom jamono bi nga xam ne mu ngi fay footballé voilà ak ànd ci ki nga xam ne mooy Salif Sané waaye xam nga Schalke dañu wàccoon ci deuxième division ba ren ji nag yéegaan nañu waaye Malick Thiaw moom mu nga AC Milan jënd nañu ko njëkk gi ñu ko jëndee sax dee bariwul de xaalis bu néew la 5 millions d'euros def ci moom voilà jamono bii nag mu ngi koy toj li mu ñëwee doon na toog ci baa bu fan yi daal dañu ko gis semaine yi weesu muy titulaire di wane jéggi day yooyu mu wane démb tax na ba waa AC Milan am nañu xel mu dal ci moom te bëgg nañu lool ci performance yi nga xam ne jot na ko wane bu ñu fàttalee nag Malick Thiaw ba léegi ni mën na jouer ak équipe nationale bu Sénégal bu ñu ko woowee woowaguñ ko nag ndax jouegul pour sélection nationale bu Allemagne ba léegi jouegul tam pour équipe nationale bu Sénégal mën na jouer foofule mën na jouer fii ci réew mi ndax baayam sénégalais la voilà gars yi bu dee ki nga xamante mooy Courtois moom dèjà dellu na waaye du mën bokk ci jongante googu nga xam ne Real war na koo am seen diggante ak Elche boobu sax tey jii lay doon voilà kon foo mën nañu wax ne Lonil mooy ñëw ki nga xam ne mooy Courtois day ñëw commencé entraînement ngir waajal yeneen jongante yooyu ñëw ca kanam waaye Hazard moom ñu ngi koy xaar di ki suba ba ñu sukkasndekoo ci kayiti xibaar yi Manchester United seen gone gi nga xam ne moom Fenerbahçe ci Turquie bëgg nañu ko Fenerbahçe daal nee nañu yeesal nañu li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg ci gone gi voilà bëgg ko signé yóbbu ko foofule xam nga Turquie ba léegi seen transfert yi jeexagul ñoom ñu ngi ñu njënd mi te gone gi kat bëgg na reprendre li nga xamante mooy dégg euh, jamono yëpp mu ngi toog nekk ci jafe-jafe comme loolu jeex na moo bëgg a dellu foofu la ci Manchester United ñii nangu ñii bañ euh, fu muy mujj mën na mujj Turquie nag Turquie googu daal ubbil nañu ko bunti Fenerbahçe googu la bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi wamaan na fa lay dem daal di relancer waat li xamante ni mooy carrière na ko ci kayit xibaar yi voilà gars ci xibaar continuer the best sport news channel